parce que li fi ëpp ci violence ñoom ñoo ko fi indi sàmm sa kàddu bi nga xam ne seen tête de xam na ni il a perdu Dakar et il ne va il ne il ne il ne la retrouvera jamais parce que moom xam na lan moo ko lan moo ko teg euh, ci bopp mairie bi. da ngeen am ay sondage lu firndeel li nga wax nii. que ni moom euh, ñun que ni il a perdu il va perdre Dakar. Euh, sondage bi gën a. parce que li ngeen di wax ñoom ñu ngi koy wax. sondage bi no dama ni sondage bi gën a yow génnal ci mbedd mi rek laaj sénégalais yi duggal ci taxi yi duggal ci njaganjaay yi ci tata yi BRT duggal foo dugg et puis nga xool également la mobilisation des différentes coalitions les caravanes yi lay romb di nga xam effectivement que les cartes sont les dés sont déjà jetés celui-là la tête de liste qui sait que ni il a perdu Dakar il l'a perdu d'ailleurs xanaa fàttewuloo élection deux mille vingt quatre yi passé le mars bi. Seulement les deux élections ne sont pas. Les <laughs> deux élections ne sont pas waaye les Sénégalais sont très cohérents Sénégal askan la woo woo xam ne mësula joxe bopp rocc làmmiñ Sénégal askanu Sénégal ku mu jox gouvernement jox la président de la République élection législative ya ca topp da lay jox majorité bu doy ba nga liggéeyee ndax xam na ni loolu nga soxla moom mii ci boppam xam na ni il pour pour la petite histoire. pour être candidat il a fallu qu'il fasse le pied de grue chez Ousmane Sonko pendant plusieurs mois. pour être candidat pour être candidat de Yewwi Askan Wi pendant les locales passées il faisait le pied de grue chez Ousmane Sonko man mii ci sama bopp jot naa ci am divergence ak ousman Sonko en personne nee nee woon naa ko diw mii du nekk suñu candidat et j'avais donné mes raisons. à l'époque. en 2021 lan moo waraloon loolu. li taxoon ma xalaatoon ko. Mm-hmm. pour la bonne et simple raison que c'est quelqu'un de très insaisissable voilà quelqu'un boo xam ne boo ko jàppalee fii tey suba ci yow lay njëkk a attaqué loolu laa xam ci moom c'est quelqu'un de très insaisissable et c'est quelqu'un boo xam ne jàpp naa ne amul niveau déjà musuma ko dégg mu wax wax ju xóot je ne l'ai jamais entendu dire une chose vraiment euh, euh, importante mais mais dans ce cas pourquoi moom poste yi muy am yu ci bëri ay ay poste électif la. nekkoon na fi maire du mu nekk maire et tout ça parce que parce que dafa nax sénégalais yi ñu ci ñu ci ëpp. nax leen ci kàddu wane jamono jooju effectivement surtout jamonoy Ablaye Wade xam nga moom déjà c'est quelqu'un qui est venu dans le parti socialiste juste après la la la chute du parti socialiste et de de de façon euh, disons opportuniste il a vu que ni. le parti socialiste était un parti en déclin parce que ñu bari bàyyi woon nañu parti socialiste moom il est venu pour se frayer euh, euh, euh, une place il il s'est créé une place dans le parti socialiste mais du du ci du ci passé du ci niveau d'étude du ci dara moo tax waa parti socialiste ñëw dénk ko seen jeunesse mais parce que gisoon nañu parti socialiste jamono jooju mu ngi daanu juste bi Ablaye Wade ñëwee ci nguur gi ils avaient besoin d'un discours opposition amatul woon foofu en 2000 à partir de Le Parti socialiste avait besoin d'un discours dur contre le, le, le, le pouvoir de, de, de, de Abdoulaye Wade. Voilà pourquoi, quand il est venu, avec son, son, son, son style-là, etc., les gens ont, pensé, ont cru bon de lui, euh, de, lui confier la, les, les jeunesses socialistes. Et ensuite, pour revenir à 2021, c'était même pas le candidat de Khalifa Sall. xalifa Khalifa Sall son candidat c'était Soham Wardini lu ne yekk na ko xalifa Sall ci jamono jooju lu ne ah, il venait faire le pied de grue chez Ousmane et cetera euh, neexal Ousmane fii et cetera wax sama doomu ndey fii à sama doomu ndey à droite. ah mais mais dafa mel ni nag loolu lu ñu sekkoon la si jamono jooy c'est-à-dire ku ci nekk defal nga sa morom. loo xamante ni xëy na xam nga Ousmane Ousmane dafay seen relation boobu war nañ ko remettre en cause avec le temps xam nga Ousmane Ousmane dafay nit ku loyal. Ousmane boo ko ci jiyee teraanga moom jàpp na ni daf la ko war a fay daf la war a fay sax lu ëpp loolu ku ko xam depuis très longtemps noonu la mës a doxee man bi ma diir bi ma koy xam lépp xam naa ni noonu lay doxee quand la monsieur est venu faire le pied de grue chez lui chaque jour mu ñëw këram deux ou trois fois neexal ko fi je me sax ndax daawul euh, soxna Ousmane yi daawuñu ko yónni ay marché je ne sais même pas certainement loolu mun naa ne waaye fex def ji Ousmane joo xam ne Ousmane était pensé que. c'était quelqu'un de bien mais man j'ai été alerté dès le début bi mu gisee muy def pied de grue foofu rek ak ni ma ko xamee on on a on, est presque dans le même quartier il habite Baobab moi j'habite la Sicap Rue 10 on habite je connais ce genre de personne. mais mais tey bi seen relation commencé euh, yàqu. Mhm. en tout cas. ku ci nekk euh, moom en tout cas moom la ñu gën a dégg sax mu wax moom Barthélémy Diaz il faut mm le citer. mu ne Ousmane Sonko euh, li tax euh, mbir yi am expliqué woon na avec euh, gisee bi ñu gisee woon le président Macky Sall et tout ça euh, jotoon nañu gisee jotuñu gisee est-ce que loolu. jotoon na kan jot na gisee. je veux dire bi ñu jotee gis je veux dire euh, autant pour moi jotoon na ko consulter. Mhm. jotu ko consulter loolu laa bëggoon wax. mu mel ni mbir moomu moom moo indi coow seen diggante est-ce que tey da ngay remettre en question. loolu nga xamante ni moom la joxe comme argument ni. tey loolu moo tax seen relation détériorée wu. à ce niveau mais c'est fondamentalement faux boo ko xoolee ba xool li ko li ko tax a jàppale ji Macky Sall li tax mu dem rapproché wu ci Macky Sall ce sont ces dossiers judiciaires voilà quelqu'un qui a tiré devant tout le Sénégal sur des gens kenn dee ci ñu jàpp ko normalement c'est quelqu'un boo xam ne minimum waroon na waroon na am une peine de quinze à vingt ans comme maintenant la peine de mort a été abolie au Sénégal ñëpp gis nañ ko muy muy tiré. ci ci ci biir foule bi ñu naan ko mi ngi ne la kële la muy tiire mu yore fital tout le monde l'a vu il avait un dossier judiciaire ce n'est pas pour rien que son père est allé rejoindre Macky Sall au moment où lui il se disait opposant de Macky Sall parce que son père était était allé là-bas pour négocier le dossier de son fils. kon léegi monsieur le ministre loolu mu avancé comme argument. oui que demoon na seeti ji Macky mais consulté na leen moom ak Khalifa Sall. vous confirmez ça ma ni li ma wóor ba wóor mooy. Mhm. Ousmane Sonko bu bëggoon a rencontrer Macky Sall du ko jaareel ci kooku ngay wax su ko bëggoon Macky Sall yàkkamtiwul woon lu dul Ousmane Sonko wane ni am na tuuti bëgg-bëgg rencontrer ko man loolu xam naa ko ñun ñëpp xam nañ ko Sénégalais yëpp xamoon nañu ne Macky Sall ca jamono yooyu. la mu bëggoon la mu doon organiser yëpp pour Pastef ñëw bokk ci ay mooy les les rencontre laa là nu mu tuddati sax. Euh, naka la ko tuddeeti sax encore mooy dialogue voilà les dialogues là les les yi mu doon yi mu doon organiser pour mhm. Pastef bokk la moo tax Macky Sall a été soulagé en 2020 bi nga xamee ni woote na ci affaire Covid boobu ba Pastef accepté bi mu wootee Ousmane bëggul woon dem xam nga c'est nous qui l'avons poussé à y aller il nous a consulté on lui a dit ah il nga dem munoo bañ a dem loolu kese moo tax mu dem bi muy dem dafa nii donc je demande ngeen jox ma seen ay input ku ci ne na wax lan bu ma demee lan laay discuter ak on a réfléchi ensemble et on lui a demandé di aller jox ko suñu ay idée mais su fekkonte ni rek dafa bëggoon a gisi Macky Sall xam nga ni du jaar ci kooku. waaw ah, dans ce cas lan moo nekk le fond du problème. <laughs> le fond du problème mooy sa garson et insaisissable ce garçon est un garçon boo xam ne li ñuy wax naan boo yaree sa kuy yow lay njëkk a attaqué may ñu tuuti rek. Khalifa Sall est en, en danger. comment ça. il va s'attaquer à Khalifa Sall après ñoom déjà ils vont perdre ces élections législatives là de façon. indescriptible pour quelle raison. pour récupérer taxawu. il va chercher à récupérer taxawu Sénégal parce que bon d'ailleurs moi je sais que moom Khalifa Sall ça n'a jamais été le grand amour 2021 laa ko xam. constitue la ma la ma daan dégg mu koy wax Khalifa Sall sur le dos de Khalifa Sall je sais que il n'y a jamais eu le grand amour entre eux maintenant fa mu jëm moom mooy attaqué Khalifa Sall. mais mais monsieur le, ministre je vous rappelle des propos de Barthélémy Diaz fii sax la ko tenir lors mhm. d'un entretien. Mhm. que moom bokk Khalifa Sall ci élection présidentielle jaral na ko mu retiré wu et c'est ce qui s'est passé. kooku dina dem retiré wu ci élection présidentielle présidentielle yi ku mel noonu nga xamante ni il a je peux dire sacrifié li nga xamante ni moo di sa candidature en 2024 pour bàyyi Khalifa Sall jàll naka la mën a amee euh, c'est-à-dire benn nourrir ce genre d'ambition là comme comme bi nga bi nga bi nga bi nga wax léegi mais de vouloir écarter son leader en politique Barthélémy Diaz moo la gën a xam ne amul un niveau local bay am un niveau national bay nekk candidat quand il disait ça c'était une communication politique simplement quand il disait ça c'était une communication politique à qui s'est-il attaqué moom ba kan la njëkk a attaqué ci ci parcours politique am mais c'est Tanor Dieng Tanor mi nga xam ni moo ko pré moo ko frayé frayel yoon ba mu nekk euh, leader de la jeunesse socialiste du moom la njëkk a attaqué ànd ak Khalifa Sall ñu ne déet na waaye mu ñëw Ousmane Sonko def ko maire du Sénégal de de Dakar mu ñëw attaqué ko donc jamais 203. def ko maire je vous dis non enfin c'est Ousmane qui qui ki qui a c'est Ousmane qui l'a soutenu pour qu'il devienne candidat de Yewwi Askan Wi dans dakaar si Ousmane ne l'avait pas soutenu il ne serait jamais candidat su fekkente ni rek cette candidature là était euh, entre les mais de Taxawu nee naa la Khalifa Sall. candidatam c'était Soham Wardini loolu mooy dëgg bi loolu ca jamono ja nit ñi wax nañ ci ba bàyyi il na c'est parce que Ousmane a presque tordu le bras a xalifa Sall pour que Barthélemy soit candidat et, et l'argument était était était très objectif l'argument de Ousmane Ousmane dafa jàpp ne am Soham dini nekkul ci opposition bi ñun du ñu jàppale ku nekk ci opposition ku nekk ku nekkul ci opposition jamono jooju bul fàtte ni Soham Wardini mi ngi woon AFP. voilà l'argument que Ousmane avait ave avait développé et comme taxaw ñoom ñoo waroon a ñoo moomoon dakaar ñoo moomoon candidature Dakar <laughs> voilà c'est c'est très important de le dire. en tout cas yaa ngi yaa ngi préciser ñoo moomoon ak. moomu non ñoo moomoon candidature Dakar parce que ci Yewwi Askan Wi dañoo amoon benn ay déggoo yu ñu déggoo woon dañu ne bu ñuy dem élection locale bépp membre Yewwi Askan Wi woo xam ne yaa ngi nekk ci benn mairie nekk fa maire yow la ñuy bàyyi nga tànn. candidat ba fay dem et eh, Dakar taxawu moo fi hmm. nekkoon. léegi donte tooñ nañ leen ah d'après euh, li li nga wax ak surtout vidéo yi nga xamante ne gis nañ ko ak gis absolument ah, ak vidéo nga xam gis nañ ko ndax je pense que ñëpp ko gis ñëpp ko ñaawlu euh, est-ce que d'accord nga euh, ci kaddu yi nga xamante ni le président du PASTEF tenir na ko aussi en même temps nekk premier ministre tenir na ko foofu nga xamante ni mais lan nga bëggoon ci lors d'un meeting di di Euh, woote ngir ñoom ñi jiite jiite ay militants om di leen ñaax pour ñu dem def œil pour œil dent pour dent dekkaliwaat gatsa gatsa. ba sax état ba sax attaqué état. merci merci d'avoir merci d'avoir défini gatsa gatsa xam nga gatsa gatsa nit ñi dañ koy ñaawal di wax ne saa non c'est œil pour œil dent pour dent. gatsa gatsa est-ce que loolu aussi. astu reconnaissons que c'est un terme que Ousmane n'a pas créé. c'est un terme en tout cas sur la scène politique celui qui a le premier parlé de Gatsa Gatsa mais c'est Khalifa Sall et pourtant ça n'avait pas pris une telle ampleur il a fallu que Ousmane en parle pour que nos adversaires bi nga xam ne jàpp nañ ne bon Khalifa certainement c'est c'est un adversaire de moindre euh, calibre bi ko Ousmane lañ ko commencé ñaawal alors que Gatsa Gatsa mais man mii di wolof foncièrement ancré dans ma culture wolof Gatsa Gatsa xam naa lu gat sa gat sa. mais définir nga ko léegi œil pour œil dent pour dent. mais loolu loolu ñaawul ci politique. mais no œil pour œil non mais qu'est-ce que vous voulez finalement qu'on tende l'autre joue on ne le tendra jamais soo ñu attaqué ñun duñu la attaqué waaye soo ñu attaqué nag di nga di nga ñu fi fekk ci yoon wi d'ailleurs loolu moo tax sax ñu survivre en vérité le fait de de refuser de tendre l'autre joue moo ñu may tey jii nii ñu sénégalais yi wóolu ba dénk ñu réew mi tey jii nii bu fekkonte ni loolu def nañ et lu ñaaw loolu wax dëgg yàlla lu ñaaw loolu ñu def xale yi fële ca ndar mais loolu jarul le président Ousmane ko taxaw monte au créneau wax il n'a fekk que constater des faits c'est des faits qu'il a constaté il a constaté que on est très souvent très fréquemment attaqué et ces gens qui nous attaquent duñ ci jëlee dara. ba egg ci état dafa nekk am faillite état amatul mais c'est un fait suñu ay responsabilité il n'a pas dit état amatul c'est il a constaté des faits au moment où on nous attaque on nous on nous agresse ñun suñu ay militants la ñuy convoqué ñee kenn kenn defu leen dara loolu rek il a pointé du doigt des faits et maintenant bi mu defee loolu nag alhamdulilah bi ñu déggee communiqué gouverneur Saint-Louis ba wax ne jàpp nañu quatre-vingt xaw ma ñaata personne ma dégg tamit aussi que nii parce que daf leen jox ultimatum quand même. non daf leen non attends non daf leen non bu ñu réagir mais non daf leen wax ne leen prenez non prenez vos responsabilités. et de façon te nag loolu tamit muy lu sénégalais yi war a rafetlu ñu ngi koy rafetlu ndaxte bu fekkonte ni dafa sol mbubbu premier ministre non seulement moyen état lay lay campagner mais ñaareel bi aussi. démb bu loolu xewee day woo ministre da koy woo au téléphone ne ko demal nga jàppi diw demal nga jàppi diw mais sa ni mu ko waxee démb effectivement noonu la taxawee fii ci réew mi maanaam candidat la jël na mbubbu euh, président wu parti sol ko dafa méngale boppam ak tous les leaders euh, tous les candidats à ces élections législatives là loo tax mu looloo tax mu appelé à la responsabilité waaye loolu tamit li mu jur gis nga ko mooy que non seulement jàpp nañu euh, ay nit ñu bari yoo xam ni xëy na euh, ñoom ñoo ñooy responsable lu euh, massacre yooyu ñu amoon yu am fële mel ni Rwanda en 94. on dirait man bi may seetaan affaire yi man man film film film bi bi wax ci Rwanda la la may fàttali li li li li li.